Serigne Mara Niass macha allah alors mhm. euh, rafetlu nañu loolu ngay taxawaay mu nekk taxawaayu euh, murit boo xamante ne bi itam mhm. murit saadix la mhm. mooy euh, dañu lay digal nga def ñu tere la nga bàyyi voilà merci beaucoup donc dañuy ñëw ci meneen mbir moo xamante ne bi xew na mu nekk aw tiis nag wax dëgg yàlla di ab immeuble bu daanu te itam nga waxoon quoi sëñ Mara dafa mel ni souvent da ngay gis loo xamante ne bi dañuy dox ba egsi ci bokk na ci <laughs> boobu li immeuble nga xamante ne bi waxoon nga ko vraiment il y a mois tey lan mooy wan Serigne Mara Niass. Baye Fall jërëjëf ci lu am solo loolu nga xam ne wax nga ko gis nga bi ma ko waxee nag am na xale yu génn daal ne xam nga nag bari na ñoo xam ne sax dëgg la ñu ngi ci internet bi dañuy gis sëriñ maara wax dara ñu toppaat ci wax ñooñu sax duma leen balaame ndax ñu ngi góorgóorlu tuuti di topp sëriñ Mara bi ma ko waxee ñu bari xamuñu li may wax gis nga man réew mi lii laa fi man alerte. ku ci mel ni suñu mbokki patriote yi wala nangam ak nangam ay weer ci ginnaaw buñ daan def waxtaan ma ne la damaa tiit. ñu bari daawuñu ma dégg sax. dëgg la bu ma masaan di xool di xool ba yàgg ma ne sama xel dalatul dañ naan waaye sëñ maaraam yi nangam. Baye Fall immeuble yu mel nii ak yëf bu ma koy gis damay bëgg réew mi moytu ñu xam fi ñuy teg seen tànk ba noppi ku ci nekk gis nga kër. wala oto wala soxna ñoo yam balaa nga cee dugg danga nga ko war a seet àdduna nit ki fii xamoo sa sarax wala xamoo sa bopp waaye nga baal ma <laughs> yaaram seet mooy dëgg suñu mbokk nasaraan yi nga xam ne àdduna ñoo ko téye ci seen loxo mm-hmm. lépp lu ñu def sax ñoom dañ koy seet bien dañ koy seet ñun Sénégal nga nekk fii ne damaa bëgg mucc bëgg a mos te yow yoon yi waral yooyu yëpp jaaroo ci benn defoo ci benn Sénégal rek ngay gis ku naan la gëw ma te bu guddee mu fanaanoo sangu ndax ñun sénégalais yu bari dañuy kàcc sénégalais rek ngay gis nit ki muy dox ba amub sikkin te xamul saraxam wala yaxoon si billaahi mais sëñ Mara yow dañ lay taxé ah nee nañ la euh, li ngay gis souvent dafa dafa bëri lu négatif. Euh, da ngay euh. gis dee dangay gis ay musiba da ngay gis dammu. par ah. exemple dammu Sadio Mané. yéen yéen lii ngeen bëgg. ku leen di wax yu neex kër gaa ngi taxaw oto baa ngi taxaw ñetti daaba ji <laughs> seet yu xew yooyu ngeen bëgg yéen man nékkuma foofu ki ma fay ngir ma seetal ko du ko fen mukk bu may seetal réew mi it duma ci kàcc mukk te heure bu ma waxee da ngeen naan moo tax damay ñaan yàlla réew mi yàlla buñ ma teel a xam loolu nag waxe olof la te waxin la bi ma fi gisee ne Sadio Mané ñëpp dañ ne acim bi ngeen jàqee ngeen daw ñëw bi ngeen di gis-gis man li ma fiy gis ak loolu du ma ko ndamoo nag dama koy sant yàlla di wax ne yàlla moo ma ko may yàlla mi ma ko may nag di ay at après rek ay at dina ñëwaat dina am keneen koo xam ne bi ma fi doog a dugg du ngeen fàttaliku li ma leen waxoon dee leen arrière tuuti dama ne dinaa leen la jël huit ci sama affaire yooyu ba noppi ne dinaa leen jox ay dat te dinañ ci yegg man ak sénégalais yi pourtant yéen ñu bari da ngeen a taxawoon ne loolu mënta ne damaa sonn ci vaar yi man dañ maa vaara vaara vaar ba nuróotuma ak nit ma koy sante yàlla nag ci vaar yi positif nag la bu doon ku maag <laughs> ñi nga xam ne na ma yàlla baal man damaa nekk nit koo xam ne yëf yi bu ma ci wul andiwul lu bees moo tax sëriñ su bari léegi tombe nañ ci pièce bi te ñoom ñëpp piège naa leen xam nga mooy lan mhm. koo ci dëkk mi kon rek mi ngi naan eh am na luy xew am na luy nàngam est-ce que xam ngee ne bi ma koy wax amul kenn ku ko wax amul kenn ku ko gis bien bi may ñëw damaa ñëw indi lu bees waaye ñoom nañ moo tax fi mu ne koo ci gis ah, gis naa ci diw lii gis naa ci diw nangam kàcc rek. kàcc kàcc gisuñu dara. mais seet bu positif aussi sëñ Mara. non déedéet ba ci war a takk seet bu positif amul. seet bi li mu génne moo am na doon lu positif na doon lu négatif. ba ci ki war a takk mais yow li nga may forcé nii xanaa mooy ay kacci ki war a takk soxna nga ne ko sa soxna. même ki war a takk soxna bu soxnaam su waree faatu dama la koy wax. même ki nga xam ne dafa war a jàpp yoon tukki doo ñibbi seeti dama la koy wax. kii xéewal ñu war a ñëw ci moom danaa ko ko wax na ko defal saraxu nangam ak nangam lan moo tax nga bëgg maa forcé may wax lu neex rek àdduna loo gis ñaar la lu neex ak lu naqari la. à un moment donné bi ma fi gisee na leen coupe d'Afrique bi day ñëw neex na lool ngeen sibile yéen ñëpp kontaan. dëgg la bi ma nee leen coupe bi du ñëw ñu bari dañ maa mere woon waaye après comprendre nañ li ma doon wax. dee leen digérer yu neex yi waaye yu naqari yi dee leen ko wannaasu Euh, d'après loolu lan mooy euh, njariñu seet ak génn sarax. jërëjëf loolu mooy làmp nit ki. Mm-hmm. aw yoonam da ko war a ñiit ba mu leer te lenn képp ko mën a gis mooy seet am na ñoo xam ne sax seen mbiri bopp danañ leen ko wan waaye sarax yi lañ dul xam moo tax raaj na la ko ci nekk dafa lu la yàlla may gis nga wàllum seet. Mm-hmm. wallaahi ci jamono ji ci Sénégal du ma wax mukk di fëgg sama dënn nag. Mm-hmm. kenn ku ci nekk loo am nangul naa la ko waaye xëccuwuma ak seet nag ci Sénégal moom. ndax yàlla may na ma ci loo xam ne dépassé naa nag naan ay diw seet ak ay diw nangam man dépassé naa ko man xam nga lan la képp ku ma seetal ba wax la say sarax nga def ko jërul ngay toog fenn naan defal ma ñaan wala nangam ak nangam te loolu mooy lu wér te nit ki njariñal seet mooy bu fekkente ne da ngaa bëgg a yëkkatiku seet rek moo la mën a wan yoon wi ngay jaar xanaa xamoo léeg-léeg nit mi ngi jóg di liggéey sax nit te xamul ne bu ko yàlla mayoon tuuti ràññat lekk sarax day def saraxu nàngam rek mbir ma <laughs> nga baal ma def nàngam ah waaw moo tax nga xam ne seet yamul ci defaral nit li muy yàq moo ëpp li muy defar moo tax bu leen di tëb di def sarax yu ngeen xamut ñu bëri keroog bañ tuuree deret booba la seen mbir yàqu téeméeri Sénégal boo leen tegale woon fii kenn nit a ci war a rey boo ko tegee ci yoon waaye Sénégal léegi ñëpp dañuy tuur deret euh, voilà am na sëy yoo xamante ne bi sëñ Mara je mhm. dañ ko dul seet parce que am na fi sëy yoo xamante ne bi yàggul dara mhm. dafa am rek créer coow. bi ci mujj mooy par exemple. su ma uh-huh. mënee tudd tur mooy bu euh, Alioune Seck ak ki nga xamante ni mooy doomi Awa Baba Thiam. am sëy yoo xamante ni est-ce du parfois dañ ko war a seet parce que nit sëy mën na fa juddoo rek yëngal kër ga. Euh, loolu nag sama yoon nekku ci duma ci du ma ci du ma ci du ma ci wax te euh, bu fekkee sëy ba daa am coow yàlla na ci yàlla def ndox mu sedd bu amul coow yàlla bu mu am coow waaye sëy daal dañ koy seet. gisoo woon ne war gisoo war nañoo seet sëy. déedéet maanaam maanaam maanaam maanaam. Euh, dans le général quoi. am na mbir yoo xam ne bu amee coow mooy fa mbir ma jaaree baax ba faw ah bon waaw am na mbir moo xam ne bu tijjee coow rek dafa nar a baax am na mbir moo xam ne it bu tijjee coow. Hmm. fa li loolu lépp ay tegtali seet la waaye loo seetul mbiram jekki-jekki rek mu daal ci sa kaw damay wax rek. bëgg koo ràññe la naan li waral nag mën ngaa juum waaye dama ne la coow yàqul sëy ci ko xam nag. coow yàqul sëy. déedéet <laughs> coow yàqul sëy de coow sax day neexal sëy. coow defar na sëy waaye aussi. Euh, mais lim koy lim koy defar ëpp sax lim koy yàq. nit ki war a takk nit ki war na xam ndax. moo tax yéen du ngeen gis lu bari. sëy dëgg dëgg dëgg. ci soow ci soow lay tijjee ko maanaam coow. Hmm? waaw sëy bu war a neex te nga baal ma sëy yooyu yi ci ëpp buñ joxalee ay weer sëy ba day tas déet waay buñ di buñ yóbbu samay wax nag waxuma damay jël exemple na la coow ni mbaaxee ci sëy rek waaye dafa nekk ay buntu yoo xam ne ay buntu faton la yoo xam ne mag ñi daan nañ tàppaas sëy hmm. waaw tàppaas sëy boo ko déggee mooy gan gi bu ñëwee ci ay weeram mu dellu hmm. ñaare lu rëy dana taxaw ca kër ga wala ka mu fekk si def mbir def jéego waaye nag loolu léegi dafa yàqu ba jamono nit ñi xamatuñ lu baax xamatuñ ak tojtal hmm? coow sax léeg-léeg day dal ci ku mburta dal léeg-léeg dañuy sànni coow waaw kër ga coow mën na faa war a xew ñu son ñu sànni ko seet bi ñëw ñu ne seet bi kat coow la ëndaale te xamoo ne seet bi moo ràmm waa kër ga ba téye leen ba la fa waroon a xew lépp jéye ja suñ borom def tourné mbir mi feneen yooyu yëpp day am. su ma la déggee ci li may wax nii nag lu sew la. loo xam ne ci wàllum sëy lay juddoo. Mm-hmm. waaw mel ni nit ñi koy wax ñuy siiw lu bare bari day dal ci seen kaw seeni njaboot sax duñ ko fekki kër yu mel noonu ñaare boo dégloo tuuti ay weer ci ginnaaw nit mën na faa faatu. Mm-hmm. waaw nit ku nekkoon ci kër gi wala ku jege woon ci kër gi may jël exemple te looloo am sax waxuma nag ay papa coon déedéet nit ñoo xam ne manoon nañoo nekk ci biir kër gi faatu. Mhm. jigéen ñëw maanaam dafa am loo xam ne ay tomb la sëñ bi seet mooy dëgg. li euh, ma la déggee sëñ bi dafa mel ni nga wax ne seet mun na régler lépp dafa ni seet. waaye seet mooy def lépp. mën na def kaaraange mën na def. mooy def lépp lépp lépp nit ki buñ la xasee wax sa nit ki boo xasee seetlu sëñ bi seet mooy mbir mi man mas naa am avion bu may xool ak départam ñu jox ma benn lis bi ma ko dugalee ba seet ci chiffre yi may seet ca laa xamee ne tubaab bi nag seen lépp dañ koo seet seen heure u départ yëpp da ngay gis yoon wi leer naññ heure bi ñuy wàcc yoon wi day leer naññ ma dugalaat seet gi beneen jour mu joxaat ma loolu ma xam ne tubaab yi dañuy seetlu yoon sax dañ koy seetlu. Ah waaw way wallaahi sëñ Mara nit balaa dafa war a xool yoonam dafa war a xool yoonam balaa ñibbisi dafa war a xool yoonam. am na couleur yoo xam ne boo ko solee di wuti doo am mukk am na dàll woo xam ne damaa bañ a wax tur wi di yàq njaayum jàmbur te nit ñi dañ koy sol bari na lool ci dëkk bi dàll woo ku koy sol di wuti doo am. ah bon bari maa la ko wax de te sax bu ma waxoon wax couleur bi. am na couleur yoo xam ne boo koy wuti boo ko solee di wuti li ngay wuti doo ko am bu ñëwee doo ko muurloo ta bakkan sax mën na cee taxaw. Eh, sëñ bi àdduna dañ koo war di seet xam fi ngay teg sa tànk. couleur yi doo ñu ci baax. non non yi duma ci baax kenn dara damaa bëgg nit ñi gindeeku waxuma ne maay seetal ñëpp kenn ku ci nekk xoolal ki nga doyloo mu man ko nag te bañ laa fen mu seetal la sa mbir yomb. Euh, wax nga ni seet mën na euh, euh, jubóole ay sëy. Mhm. wax nga ni seet mën na def kaaraange. mais ñu bëri dañuy wax naan. Mhm. dañ leen a nax ci wàllu këyit. Mhm. dañoo ñaanlu ci sëriñ bi ngir am ay këyit ca bitim réew. est-ce seet mën na may nit ki ay këyit. moo tax ma ne léeg-léeg damay faral di ko wax sëriñ su bari ñu ngi fii dàq nañ leen ci ambassade yi ba ñu bëgg a dee. la <laughs> waaw <laughs> am na ñoo xam ne sax. moo tax gis nga yéen Sénégal dama leen a nax nag yéen. Hmm? dama leen a nax nax gu rëy te xamoo leen ko dégloo leen ma nag damaa ñëw fekk ñu leen daan solal ay grand mbubb di teg ay mbaxana di leen tiital. damaa ñëw di kaf ak yéen di fecc di ree dama leen a nax di fecc di ree di hmm. ambiance. ñu ne comédien la ñu ne comédien la. kii mii ma xam ci li ma toog léeg-léeg daanaa rëcc na leen damaa toog ci lu wér te looloy dëkk dem ba sénégalais yépp tey boo waxee mënoo tudd senegal seet te sa xelu dem ci sëñ Mara loolu du ay pexe loolu ab liggéey la te am na sama benn jigéen soxna Mariama maa ngi koy nuyu mi ngi Amérique mhm. euh, nee na ma Amérique lii ngay def ñi ko fiy def dañ leen di fay état bi daf leen di reconnaître ma ne ko man état wu Sénégal bu ñu ma jëloon ba woo ma man man te lii may wax ci di tale laa koy waxe sag mhm. weer ma ñëw dama naan leen jël leen biig jël leen fooy weer wi lii moo fi xew lii dina fi am lii du fi am kii day faatu man man naa ko man dafa lu ma yor ci wàllum seet te yàllaa ma ko may te dama koy gis ba gis gi day leer te day ëpp état senegal man bu ma jëloon chaque weer ma wax ko réew mi li fi xew te loolu moo am seex bi man loolu yàlla moo ma ko may. sa gisin yàlla moo ma may loolu lu ma bëgg a gis ci nit ki gis ko lu ma bëgg a gis ci réew mi gis ko ma ciy sant yàlla nag bu baax réew mi léeg lekk coow li day bëri ba du kenn du xàmmee luy dëgg ñii dañoo soxor ñii xolu doomu soxna jàpp leen waaye man sama xol bii dama ko xar bam set wicci di leen wax ne. man ñëpp laa yéen a jàmm man aw ma noonu man musumaa gis sax man koy wax ci man lu bon wala ngay ki man duma man gisuma yooyu kon naa sant yàlla bu paasee sama mbokk sëriñ yi may tooñ ji leen sànni xeer rek te nga bëgg a xam ne ñoo bokk yëf yi te man ñëpp jàmm laa leen yéene ci ambassade yi lañ leen di dàq parce que dañuy wuti visa puisque xamuñu ñoom ku mënta gisal sa bopp dina baaxam du baax kooku nooy mën a gisale kenn maanaam néewuma li ma tukki dem ci réewu Europe yi dem fépp moo tax may wax loolu de suur bi may njëkk a dem damaa génne loolu sax jarul ma koy wax ndax dañoo nekk ci télé te am na yoo xam ne. boo koy wax sax. dafa may sarax yooyu génne déedéet déedéet du sarax maanaam <laughs> dama laa bëgg wax ne la yàlla mooy may ñu yéen am njàng am na solo lool. seet ram li maanaam gis nga seet ñoom dañ koy jàng man damaa boole ñaar damaa jàng ceet waaye ceet dama koo judduwaale it. ma wax la dëgg. te seet. Mhm. ma bëgg a gis nii léeg-léeg ma gis ci nit ku loo xam ne day ëpp man dama ne la bi may am juróom-benni at nit da daan romb ci mbedd mi ma xam kii dox kan la xam nga loolu nit ñaa ngi dégg ma koy wax rek te yàgg naa ko wax. dëgg la te bàyyiwuñ ci xel bàyyi nañ ci xel sax yàlla bu wàccoon sàndaga dañ naan déedéet du yàlla kii day yàlla yàlla la. waaye maa ngi ñaan ñi may jëflanteel yàlla na yàlla dimbali leen moo tax képp ku aajoom nër ta faju yàlla boo ma jot ci barkeb weeru safar gi ndax man bëgguma tas yaakaar waaye ñi may jotit mbëggeel giñ may wan ak cofeel gi rek dafa ma jaral di bëggalanteeg jaam ñi di leen gindi seen wu yoon lii moom ma sonal. baatu le voyant du peuple wax dëgg yàlla ndomba googu. ndomba mhm. tànk boobu. Mhm. Sénégalais yi dem ba euh, takkal la ko mais euh, ñu bëri li ñuy jàmbat rek mooy Serigne Mara neexul jot. waaw neexul jot gi nag lenn la mooy ñi bëgg a jot dafa bëri. Mhm. tey it aw ma jot kon duma neex a jot. d'accord mais wax ji du neex na mais c'est toujours ñu seet. mais ñu ngi may jot sama xale yi numéro bii affiché ci suuf ku si woote buñ nee la jaaral fi nga war a jaar nga jaar fa man maa lay wol sama bopp seetal la. séentu asamaan jërul buuxante nañ ko def ndànk-ndànk rek fi mu ne nag li tax mu xat mooy ñëpp sëñ Mara lañ bëgg mu seetal leen te léeg-léeg nit yoon ci bis bi ma seetal ko ci bis bi léeg-léeg nit yor seetam ma dugal ko ay nangam seetam sax du jàll ma xam ne kii day faatu barke yonenti yàlla Muhammad hmm? wallahi lazim du loolu loolu moo am man léeg-léeg day ñëw ci seex bi hmm. man bu ma doonoonu tubaaba hmm. dinaa dimbale réew mi de mais heureusement Euh, senegale dañ lay xeex di la bu ma di la di di gor tànk te bu beneen làkk ñëwee ñu ubbil ko di ko yëkkati waaye dañ naan alhamdulilah yàlla na ñuy xeex gën a mën a am jotub xeex ndax ki la xamul du la yéene daray safaan ki la xam rekk moo lay yéene safaan damaa bëgg wax ne ñi ci bitti cofeel giñ la ëmbal ak li ñuy def ci yow dafa doy sëkk boo bokkoon ak nit sax ndey ak bàyyi yéene a la waaye damaa bëgg ñi nga xam ne dañuy seet seet gu wér gu wóor état reconnaître leen léeg-léeg état bi daanu ba ay nit di wax ji kii laa na leen nangam yi ci nekk dañuy faatu mais ku gis jéye ji ñëw yàlla may ko loolu. am xam-xamu surcon yàlla da ko koo may état nangul ko mais ki am xam-xamu gis lan moo tax moom mënuñu ko koo nangul ba muy dim kon réew mi yu bari du fi am. bien nga xam ne nawet bi buy ñëw da ngay xam yàlla la ko mayaa. Ah. Mm-hmm. <laughs> yàlla dafa maye te wóor na yàlla yàlla dafa maye. d'accord nga ñu mën a moo tax sama seet maa ngi si sama fin de carrière nag daanaka ci wàllu seet waaw waaw. di ko defee nag léegi ci beneen anam. gëw ma ne sax ci réew mi lay doon mën naa doon yow mal xiyaamit ndax yàllaa xam euh, barke sëñ Tuubaa maa ko wax maa ngi ci fin de carrière daal ci ku xam te li may wax na ko sénégalais yépp dagg maa ngi ci sama mujjantali seet déedwaay waaw xam naa li ma def xam naa li tax yàlla may ma lii da ngay bàyyi seet xam naa ci li ma toog non dama laa bëgg wax na la seex bi nit ku ne xam nga sa bopp waaye maa ngi ci samay mujjantali seet nag xam naa li may gis xam naa fi ma jëm te na ngeen dagg vidéo bi denc ko moo tax fi mu nii nag maa ngi ñaan na ma ñëpp ñaanal jàmm man maa ngi ñaanal ñépp jàmm àdduna amul solo